mais nag heure bu xëyee nag gàddu saagam bi ne day dem régler xaalisam ci Youssou Ndour Youssou Ndour moo ko yoral xaalis. moom ci métier sax ci la ko ñu bëri gën a gën a duggee ndax métier am tey moo doon affaire informatique yàlla da koo dimbali yàlla da koo mayoon ci loo xam ne lépp lu jëm ci lu jëm ci technologie yàlla da ko cee dimbali mu am ci xam-xam boo xam ne mun naa ne jàng ko sax mais don la bu ko suñu borom defal. torop ay nit man. dañ doon toog mu ne ma booy booy di toog si bopp koñ bi yëpp di yëpp dina jeex incha allah si li ma nekk bis bu sottee yéen ñëppay xëy di gont di daf ñu ko doon wax barki Seydina Muhammad lan nga woon ci Ablaye Ndiaye. waaw man Ablaye Ndiaye sama grand la sama mag la bon ñu dëkk dëkk si koñ bi wax dëggu fi yàlla mu doon nit koo xam ne nit ku baax la aussi te mun nañ ne moo ñu yar ndax moom ci métier sax ci la ko ñu bëri gën a gën a duggee ndax métier am moo doon affaire informatique yàlla da koo dimbali yàlla da koo mayoon ci loo xam ne lépp lu jëm ci lu jëm ci technologie yàlla da ko cee dimbali mu am ci xam-xam boo xam ne. mun naa ne jàng ko sax mais don la bu ko suñu borom defal kon wax dëgg fa yàlla li nga xam moom moo xew tey mu dal suñu kaw muy tiis bi doon na loo xam ne lu métti la mun mënuñ ko nakkarlu ndax suñu borom rek moom moo sañ jël bakkanu doomu aadama kon dañ koy delloo lépp suñu borom te sante ko yàlla te xam ne moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat waaye ci anam bi mu demee tamit doon na anam boo xamante ne métti na képp kuy doomu aadama métti na la ndax ba léegi nit ki dem amuñu benn certificat ba xam ne kii lii moo ko yóbbu ñii ñu ngi naan dafa xaru ñii ñu ngi naan dañ ko jam ñi ñu ngi naan balu fetal lañ ko dóor mais nañ ñu wax exact lan moo nekk ci biir ñu xam ñu loolu moo ñu yitteel loolu lañ bëgg a xam mais du question de ay dafa dof wala dafa nang loo yooyu ay wax la yoo xam ne waxi kesew la loolu yàgg na fi am nit yàgg na fi dee ñu jël tuuma teg ci kowam mais kii nit njaay la dara dalu ko dara dalu ko nit ku wér la dof du yor ñaari soxna yàlla dénk ko njaboot muy dimbali ay waajuram di liggéey di leen defal yor ay rakam di leen demal ay rakam yu góor ay rakam yu jigéen donc bu ñu toogee naan dafa wéradi loolu c'est faux loolu amul man maa ko wax man Lamine Ndiaye. bi nga dégg déggee ne génn na nan la la def. waaw choqué na ma trop parce que man almadi laay liggéey almadi laay liggéeyee euh, guddi googu suñu borom def mu noppalu daje naa ak moom booru côté Kacha yooyu noonu. mu nuyoon teeg moom ndax moom à chaque fois képp ku mu dajal muy rakk boo xam ne jaar nga si loxoom rek li mu lay njëkk a def mooy dana la yedd waxtaan ak yow delloo si la ne la ah booy na ngeen góorgóorlu dee leen dimbali seen yaay jox seen yaay nangam ak nangam loolu rek lañu am ci moom comme wax wallaahi yàlla rek moo tax ma wax boobu laa mujjee moo tax bi ma xëyee suba gi sama waajuru jigéen woo ma téléphone wax ma ko ne ma yow yëg nga ne Ablaye dafa noppalu ma nekk Ablaye démb mu ne waaye yàlla dafa soxlaa ku soxla ñàkk amul gise amul ñàkk gise ma ne ko loolu dëgg la mais loolu gaaw na nu mu a demee noonu ñu ne ma dafa accidenté ma ne accident ñu ne ma waaw ma toogaat ba ngoon ñu ne buntu kër Youssou Ndour fa la daanoo fa la deeyee version yi commencé dugg ma gis vidéo yi ci internet bi xool gis ay site internet yi bari dugal ko mu ne mais attends lii lii luus na nit mënul dee noonu noonu noonu te xamuñ lu ko rey ñu ñi ne dafa jam boppam ana li ko jam a arm bi ko jam police scientifique mu ngi fi nañ ko yóbbu gars yi diagnostic affaire yi xool ko exact la moo ci nekk parce que tamit bu dul dara dëgg la doomu aadama moom boo xasee ñàkk bakkanam ñàkk na bakkan alal taxul mu dellu siwaat dédommagé taxul mu dellu siwaat mais dafa rafet ñu teg lépp ci yoon xam ne niw kat dem na mais ci anam bii la demee ñun loolu moo ñu yitteel suñu mag la nag dañoo ñàkk lu cher lu force ñun nee naa la yàlla da ko may loo xam ne télé bu yàq woon boo boo ko indilee mu taaj ko defar ko mu tàkk billaahi sama bàmmeel laa taxaw di wax télé bu yàqu ci mbedd ñu sànni ko boo ko indilee mu defar ko ba mu taal ko teg ko ñu taal comme la ñu nag ak ka ñuy wax noonu ne moom ca moom la demoon loolu sunu borom rek moo xam man xamuma keneen xamu yàlla rek moo xam mais adduna bi daal kum ci mën a doon nag ñëpp delloo seen xel te xam ne lu waaye def lu ne sa bopp nga ko def te lu waaye def ëllëg di ko nettali. ñu ngi lay jaajëf jërëjëf. ngi lay nuyu. ngi leen rakku yaayam laa. yan kàddu nga ñu mën a seedeel si moom. kàddu yu ma leen mën a seedeel mooy Ablaye xale bu am jom xale bu am ngor xale bu am ambition xale bu bëggul kenn souffrir barki yonent bi muy mag muy xale. Grand Médine ñëpp ak ma tiim li may wax ay fen bu doon ay fen du ma ko wax seen kanam wallahi lazim bëggul lu naqari kenn ñàkk jëriñu lu mu liggéey jox ñi lekkul dara bàyyi ñu nag ñun lekkul dara bàyyi ndeyam bàyyi rakki ndeyam bàyyi ay rakkam bàyyi ay jarbaatam amul. Ablaye Ndiaye lu dee ci kër gi moo ko rey moo tabaxal ndeyam ne bay waa ji yëkkati ci kaw yéen a ndeyam lool nag bëgg ko lool kon doomu jàmbur kenn du ko boom noonu muy yomb du du mu métti métti nit war ngaa xalaat bàmmeel te la ko yóbbu du fi bàyyi du fi bàyyi ki ko def de du ko fi bàyyi te barki yeneen bi justice ba du def liggéeyam mu teg ko ci yoon ñun Grand Médine gépp a ngi nii taxaw góor jigéen mag ak ndaw yow gis nga li fi ne tey ñoo leen téye bu ñu téye tey ay am kon xam nañ dañoo pare baadoola amul de xam nga kan moo am nit ku nite ku nite wul mooy baadoola dañoo borom cakka du xeex borom baatu neen waa am na borom baatu neen yoo xam ne la ñu làmboo borom cakka làmboo làmboowu ko te ñoom ñi ngi may dégg bu baax a baax ñoom dafa ñu si dara laale wuñ ci dara lan moo tax gone gi nduur di woote nu mu tëddati ragal yëpp yàlla lan moo tax muy woote takkoo ci taasoo ci laale woo ci lu muy woote waaye ñu ngi koy xaar bu jant bu fi seen tànk tegee keroog néew ngeen am comme ñun ndax yéen reyu leen benn nit Grand Médine la ñu rey barke alxuraan mag ñaa ngi ni di ma dégg société la ñu rey Grand Médine yëpp la ñu rey barke alxuraan yoo xam nga te dara sax Grand Médine yëpp la ñu waaye dinañ xam ne bii néew du néew buy tëdd ci kaw suuf yow ngay dox ci jàmm loolu amut Ablaye dañ ko boom dañ ko boom tegi ndax ko bu dee daa jam boppam cicatrice yi ci yaram bi lu mu fay wuti wala moo doon boom yaram bi nañ wax dëgg dañ koy wax te dee ñoo ko ray ñu ngi may dégg kaka rey nag bu yeboo mu génn wane boppam yoon def ci di war moo gën balaa muy am leneen loo xam ne dina gën a métti lii lu mu ko jara jara nañ lu ko bu ñuy jaay doon kam fóore ak kamba ñoo leen gën a doon kam fóore gën leen doon kàngaam billaay wallaay lii kenn du ko bàyyee noonu bu ñu ko bàyyee noonu day yomb bakkan la ñu ray rey ñu ginaar ñun duñu ay ginaar Ablaye taalibe Serigne Touba la yaakaar Serigne Touba alalu Serigne Touba boobu ñu yóbbu barke maam Cheikh Rafal Serigne Touba dina leen woon boppam bëccëgu ndar kam wër na maam Cheikh Rafal Ablaye namul Youssou Ndour ñun namul dara Youssou Ndour ñun pour ñun kooku nekkul sax ci àdduna bi barke yonent bi man du ma ko déglu man du ma déglu Youssou Ndour may déglu Papa Thion laay déglu Assane Ndiaye Kéba Seck Ousmane pare naa ca kon man Youssou Ndour lan la jaral Ablaye. nañ ñu. soo dégg dama ne coow li kay li fi yàgg naa am ndax man damaa def ne monde bi ni mu rëyee mu tànn yu rek ne ko yaama yore kon moo ko yoreel man du ma tànn yow ma romb la ma ne yaa ma yoreel am naa fit boobu man damay jaay su may dem fayeeku bor damay fayeeku ñi ma jaay waaye ki ma jaay du ma la fayeeku bu dul dëgg waxal. feebaru xel bi ñuy wax ne moom la amoon. doo fu dina daaju ko fantangalu ko ñaari jeeg la yor ñaari jabar yëpp sama doom la may njëkkee waaw Ablaye Makaire maa doon ànd ak moom di jaay ba mu bàyyi jaay bi ñëw di liggéey si réseau kumba taama ak nii du ma bàyyi ma fen kumba simi kon man xam naa bu baax li may wax ma rek si xam naa bu baax li may wax Ablaye dañ ko boom dañ ko boom ndax néew naturel ku boo jamee sa bopp tax fi nga jam moo war a génne deret waaye sa nag ginnaaw gi fépp am ay dagg-dagg sa loos bi am ay dagg-dagg ci néew kon dañ koo rey dëgg neexut. ñu ngi lay jaajëfal waaw ah, kay ñu ni ñu ngi lay te di ñaan nag yal na yàlla woyofal suuf ci kawam yal na ko xolam teeru. ci barke alxuraanu karim yàlla na ko Serigne Touba ak maam Cheikh Rafal teeru ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangu sang yi Serigne Bamba rek la yaakaar barke yonent bi te koy xaar déggoo ma de billahi wallahi Serigne Bamba nga koy xaar ak maam Cheikh Rafal foofu yàlla xam na ko du ay fo yaakaar nit yombul te daa yaakaar ko jara yaakaar xaadimu Mustafa kenn du yaakaar ak moom di jéng billahi wallahi laal suuf doo ko mus a def te nañ dem lu ci kanam raw li bët yéen ñëpp di ngeen gis ci dëkk bi nañ ci a wax ku ma am nday ku ma amul day loolu dafay jeex loolu dafay jeex man fi mu toll nii man dama war a dem sax Guinée dëkk fa mbaa ma dem Gambie dëkk fa ndax Sénégal dëkk fi erreur la erreur gënu tërëy dëkk senegal sénégalais laa rek moom boo yeboo xam ne yow doo dara ndax kenn nawlootuñu kenn fonkatuñu ndax lan injustice bi bi am injustice bibi bi am nañu may jàmm ñu bàyyi nit ñi dalal leen borom alal na xam ne moom ndeyam ak baayam borom alal boo gis sa ndey sa baay ci baadool lañ judd nit loolu la war a def ci boppam bi yàlla may wut daa able de ku ne sa tuur bul la day rulle rek ku sa tuur ñëw yàlla mën na laa may milliards milliards xëytu ba ëpp ko ba mu doon ngelaw barki sëñ Fallou. maa leen di fay soxna si. yow lan nga si Ablaye Ndiaye. xam naa ko bu baax sama kanam la juddoo sama kanam la yaroo fii la màggee ma gisoon ci moom avenir bu doy waar sax bu xëyee mu demee nii rek bon day metti vraiment day metti nekk dëgg rek nga bëgg a dégg metti na trop pour te vrai. que mën nga ñu fàttali ay atam. waaw buy am ay trente six ans trente cinq ans waaye mun na ko ëpp trente sept waaw atam foofu la toll mais amagul quarante ans yan jikko nga ñu mën a fàttali si moom. waaw jikko yu jikko yu doy waar maanaam a kaaf mën a mbalak xam nga maama maama la ma wax quoi mais comme que jeune la niñ moom daf may nekk di ma dóore épaule di ma wan ne dara boo defee du lu yoon fii laa la wàccee ma ne wàccee sa maam de wàccee sa musiba vraiment mu nekk affaire yoo xamante ne dund naa ko moom parce que man fi ci kër gi laa nekkoon waaw maama moo ma yar fii ci kër gi fii laa nekkoon peut-être xëy na dañoo dem ba ma màgg xëy na ma ber sama daara mais ci kër gi fii laa defee sama enfance sama jeunesse yëpp fii laa ko defee ci Grand Médine xam naa ko bu baax a baax Euh, yan seede nga ñu mën a defal ci liggéeyam parce que dégg naa ko farlu la woon. waaw nekkee dëgg nga bëgg a dégg xam nga yenn saa yàlla day maye ko souvent nit day uti xam-xam wala mu jànge mais moom yàlla daf ko may mu am mu am ay bagage daal xam nga loolu dafay am yàlla daf ko may mu xarañ loolu ci affaire seen affaire yi ngeen yëngu yi nii câblage yi ngeen def ko yàlla daf cee may xam-xam boobu vraiment bu la ci teelee rek nga xam ne la dëgg la. moom moom amoon na loolu quoi loolu moom mayu yàlla la woon vraiment macha allah waaw loolu tamit xamoon naa ko ci si loolu rek laa ko mës a xamee aussi réseau canal yi yor fiir dugalanteeg ordinateur yi yeeg defar ay bagage daal loolu mooy affaire am waaw. mais mosoo yëg benn yoon problème am ak Youssou Ndour. non te nit rek ku ku ku ku dee ak sa bàmmeel bon mosuma yëg ni am na lien ak Youssou Ndour lu dul que ba ma fan yi avant fan yii nii sax heure bu bëggee xëy dara dem ba kër Youssou Ndour xam ma déconné fa affaire yooyu ne yu da ko yor xaalis sama affaire yooyu bon comme que nag jeune la il est majeur de vacciné bon mën na dox ay vibes sam man du ma ci xam dara man dama yor samay activité di ko dox donc mag la du xale bon mën na dox am ay business am yoo xamante ne ni mën nga jur sa doom sax moom ay business am yu muy lijjanti yow mi ndeem doo ko xam sakatuma góor boo xam ne ci taan fi la juddoo xam na la ak la waaw mais moom mosuma cee xam ne am na lien kii mais xam naa ne daal bon nduroo ñu science quoi parce que ci li su muy liggéey moom daanaka ci yooy la nekk avec technologie booy bi ci loolu lay nekk donc bu ne am na ak moom lien mënu ma ko weddi mënu ma koo gëm aussi waaw. lan ngay xaar ci loxo yoon. waaw waaw surtout loolu parce que loolu boo ma ko laajul woon sax bon maa la wax nga laaj ma ko loolu moom pas ci booy bi nii sax. loolu lu ñu war a lu ñu war a lu ñu war a état bi lu ñu war a jël jël jël ay motukaay yu baax la quoi parce que nit nit la rek quelque chose alpha ku mun munti doon muy booy bi muy keneen ak keneen nit mënul gën nit. te fii nii dama fi gis loo xamante ni nii ci réew mii nii nii nii nii ah ku am ndey la ku amul ndey am na ñoo xamante ne pour man dañoo valable xaw ma dañoo bokkul wala du ñu ay nit wala yàlla da sàkk ñee sàkk ñee am loo xamante ne nii du benn daal maanaam dafa am six six ak neuf daal day mel nit ñëpp yemuñu daal. vraiment ti lii war nañ cee mën a war nañ koo mën a war nañ koo mën a dox ba mu leer daal waaw parce que dafa ñaaw quoi lii dafa ñaaw trop dafa ñaaw trop vraiment dafa ñaaw te aussi nit la comme yeneen nit ñi temps yu demee nii bu amatee vraiment lu ñuy topp ci réew mi di def loo xamante ni naka su dul noonu la réew baa ngi nii toj kenn xamul fu waay neex dem ñii ngi rey nit à gauche ñii ngi rey nit à droite te du mujj fen moo dul yoon soo ci réew mi li fi nekk dañ koo war a wax te dee nañu bàyyi nit ñi ñuy rey ñi après mu mel ni comme ay ginaar wala ay xar yoo xamante ne après dañuy dem suule rek mu jeex loolu moo war a dakk nit dafa nit dafa foor nit bokkul ak dara nit nit mooy mooy ndëmba wan nit war mën mënta dee ñu rey ko niir après ñu dem suul ko mu jeex te amul continuité loolu moo dul yoon amul Youssou Ndour la ak famille mag la wala Ismaïla Lo keneen ak keneen jëm nit nit la waaw te rawatina nag mu ñëw ba ci kër célébrité bu toll ni Youssou Ndour loolu am fa normalement war nañ cee mën a wax li ma gën a metti te metti ma joxuñu ma baaraamu kenn mais buntu kër Youssou Ndour la deewee ci lañ ko reyee fa la deewee xamuñu ndax dañ koo rey ou pas mais war na mën a leer foofu parce que kër Youssou Ndour du kër n'importe qui lu bon bon fukki caméra ak juróom ñu ngi ci buntu kër gi kon donc lépp lu fay dox war nañ kaa mën a xam non yaa ngi dégg lu mel nii nag mënul am mënuñu cee génnee benn firnde bu leer kooku mënuma koo gëm rawatina télévision yeeg rajo bi ñëpp ñu koy annoncé pourquoi moom mi nekk ci biir këram te mu yor rajo yor télé lan moo tax génnewul annonce ne ah man kat comme am na ku dee sama bundu ka dugg ni fi génn na fi mais déedéet comme si c'est comme rien n'était loolu tamit ñaawul naa ko trop. ba léegi gisu leen lenn lu bokk si njaboot. ah gisuma ko de man vraiment te aussi tamit dégguma ko fenn ci net bi mu nekk affaire bu ma metti nag waaw metti ma trop. waaw le fait que nu mu deewee nii vraiment neexuma ko wax dëgg yàlla. li ne dafa xaru tam ama amagu leen ci dara. non man gëw ma xarum. waaw yàlla rek a xam na waaye man amaa part personnel gëw ma ne dafa xarum wax dëgg neex yàlla. nga fàttali ñu njabootam rek ñaata njaboot la fi ñaata. Euh, am na ñaari soxna am na ki am nay tuut tànk tuut tànk yi bu motul ay ñett may ñeent am nay tuut tànk am na ñaari soxna vraiment te booy boo xamante liggéey rek la gëmoon waaw bu ñu man gëw ma ko parce que yaakaar yaakaaruma ne nit koo xamante ne amoo problème mu kër amoo problème da jékki-jékki day sa bopp ci neen non man gëwuma ko vraiment. ñu ngi lay jaajëf. merci waay soxna si. yaay ñu ngi lay maa ngi leen di fay. Euh, di la jox njaal di ko ñaanal suñu borom yërëm ko xare ko àjjana euh, lépp lu ngeen ci ñaan suñu borom nangu ko ban yëg-yëg nga am tey yaay. am lu ma metti lool am laa Ndiaye nekk sama doom man ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay. mais ah Ablaye Ndiaye sama féetoo woon la woon nit ku am xale bu am avenir xale bu ma bëgg nit ku correct nit ku xam lu xam boppam franchement am naa lu ma metti lool lool lool lool nde Ablaye bëggoon nañ mu demee neneen waaye ni metti na loolu dama am yan seede nga ñu mën a defal ci moom Ablaye Ablaye xale la woon rek di jàng def électricien bi te te dafa affaire machine rek la ay affaire wu anten kenn waxatu ko anten rek la mën waaw yàlla dimbale ko nag may koy xarañ boo xam ne fii ba 26 1 ba 26 Grand Médine képp ku fi yor câble moom moo la formé moom moo la formé ba pare bàyyi la donc xam nga ni xam na dara anten waxatuñ ko affaire machine kenn ëppalewu ko ci expérience te pourtant jàngul école jàngul dara day wax euh, français day bind français di wax anglais xam nga ne loolu may-may la voilà. bi nga déggee affaire xaru bi nan la la def. <laughs> Ablaye du xaru Ablaye dafa bëgg boppam. koo xam ne ne barki démb rek la la la la vacciné wu. mu ñuy insi muy insisté na kër gi yëpp dañoo war a lundi boobu mu dee mu ne ñun ñëpp dañoo war a dem vacciné wuñ parce que feebar bi dafa bëri mu ngi fi nañu sol masque jënd paketu masque teg ko heure bu xëyee jox nit ñi distribuer mais nag heure bu xëyee nag gàddu saagam bi ne day dem régler xaalisam ci Youssou Ndour Youssou Ndour moo ko yoral xaalis benn jour ma ko chaque jour yaa ngi dem foofu di am problème te chaque jour bu ñëwee mu ne waaw damay taxaw foofu ñu may dàq di ma menacer waaye su ma deewee waa kër Youssou Ndour yi ñoo ma rey ma ne ko nag est loolu loolu buñ ci yeggante na ñu dem jaaral leen ci yoon ban xaalis la mais du nangu wax loolu moo a jaaxal soo ko ne ban xaalis la nan la demee moom danaa la affaire góor la ba jour ba nga xam ne ñëw na dafa xëy la dem fa samedi bi fanaan fa ba dimanche bi mu ñëw ba mu ñëwee fekk ma di ko yendoo di woo di woo di woo Ablaye foo nekk ñëwal lool fii foofu amul sécurité côté boobu wóorul kooku bu côté boobu ñu la rayee sax du am benn trace parce que wóorul man loolu laa sentiroon jour boobu mu toog ba timis maase rek mu ñëw yor saak bi nii taseeg ma nii ci porte bi mooy ñëw nag Ablaye ah ñëw nga mu ne ma waa ñëw naa ñoo ay Ablaye Ablaye lii wóorul. bi mu xëyee daf la tàggu woon foo waaw mu ñëw toog ay 19h la ñëw 20h mu ñëw euh, toog man na ko roota si woon ndax nga sangu mu ne ma sanguwu ma damay delluwaat parce que gisul il paraît tey tey tey bu ma ko gisul mooy sama sànni tàcc parce que foofu mu nekk tey fa fanaan. ma ne ko léegi doon naan attaaya nga toog nga ndik reer mu reer tuuti naan kafe euh, jékki-jékki dem. tàggule tàggu tàggu na ay frère am bi moo ko ba fële mu ne ko maa ngi dem bu ma guddeewul dinaa ñëw mais bu ma guddee damay fanaan foofu ba bër sat bi man ma tëdd ba minuit rek sama xel bi yëpp nekk ci moom ma jóg na bërët ñëw na attaqué grand frère bi ma ne ko ana la euh, kii euh, ana ana euh, Ablaye Ndiaye mu ne ma Ablaye Ndiaye dem na ma dem ci gàdd ma ne ko gàdd ana Ablaye Ndiaye mu ne ma Ablaye Ndiaye de dem na ma ne ko ay waay lu tax jàpp leen Ablaye Ndiaye parce que mu ne bu demee foofu gars yi dañ koy menacé Ablaye ah gàdde gàdde def ngeen ak délai de na parce que surtout démb mu ne da doon xeex ak ñoom. waaw ah, njëkkoon xeex ak waaw mu ne chaque jour day xeex ak ñoom mu ñëw ne di ñu expliqué ne da doon xeex ñoom. aa ñun daal loolu lañ ci toll ñun xamuñu lan la séq ak Youssou Ndour. mosu la wax tam sambe xaalis bi ñaata. Hmm, mosuma ko wax waaye nee na daal xaalis bi moom bu ñu ko jotee dinañ toj kër gi di waxam waaye nag man xam nga man duma wax lu ma xamul waaye daal boo ko waxee mën affaire góor waaye doom ju am yërmande doom ju jub doom ju ñu yërëm man sama doom la woon man moom kenn ñàkkul man maa ñàkk. xale boo xam ne day jékki-jékki yëkkati yëkkati xaas som bu mag ne am ma may la du ci xool dara grand mi ni ku fi nekk teral na la ñu nekk teral na la man lekk naa ci moom loo xam ne doom boo jur rek nga ko mën a lekk xii xiifuñu maruñu raflewuñu franchement naka ngeen yëgee euh, ne na sama benn petite sœur moo doon connecté wu ci guddi gi ba seen seen euh, affaire bi ci Facebook léegi mu ñëw woo sama doom bu góor mu ne ko xoolal lii ma gis kii ma gis nii ba wan ko carte d'identité kii la fekk man ay une dama jékki-jékki ne damay woo Ablaye sama final rëf rëf ma woo ko ñu coupé ma ma woote waat ñu coupé ma ba ci yàgg portable fay ma ne ko musiba am na ma ne ko xëy na Ablaye ma coupé nekk instant boobu loolu la woon appel boobu man maa ko appel trois fois la appelé deux fois bi la ñu rejeté troisième fois bi ñu fay portable bi nit boo bëggee lu leer boo wootee bu dara amee ay parents nga wóor na ñoom ñoo woote décoration nga ne leen lii ak lii la waaye ñoom ñu def lu leen neex rey suñu doom ba pare di wax ne kenn du wax dañuy wax de te wax di moom tey lay commencé dootuñu noppi tànk jàpp ñu ko def waaw. affaire xaru bi naka ngeen ko. xarul kooku du xaru kooku conscience tranquille am kooku du nit kuy xaru. am na ñu ne tam dafa am feebaru xel. amul feebaru xel ay ku am feebaru xel lay de moo gën a wér kuy wér lay ñaay képp ku mu bokkal génération bàyyi nga ko xel. intelligence rek bu romboon tey fil ñaari fil ànd naa moom benn xew ñu toog mu xool fil ba ci yàgg day def nii concentré def nii. danaan la fiit bi fii la war a jaar fii dafa am furut fii am furut ku xam loolu lan la kooku dof dof dana def noonu boo tasoon tey avion ba mu tas nga jox ko ko mu defaraat ko kooku dafa dof ñun de mus ñoo gis dofam mus te avion laawul du doxantoo paaka du doxantoo lu arme fan lay xaraw ñu bëgg ñoo nag rey suñu doom ba pare lu ñu sàmbalan ñëw dóor ko ba muy bëgg a dee jamat ko ñun ñu xam nu mu demee waaye dinañ leen ne laal nañu laalaake naka ngeen ko gisee. metti dem ba jeex tàkk ci rey nañ ko jàpp jàpp képp ku bokk ci réseau bi ñoom complice la parce que loolu la kii benn dañ ko fabriqué ñun dafuñu dafuñu. kayit yi lan la génne. dañ koo rey. dañ koo jamat ñaari jamat dóor ko ba muy bëggandee ko sànni ko ko ñoom la koy di génn man maa wax loolu man ak ñoo bokk ndey ak du ma fenal ki benn doomu aadama ñoom ñoo ko rey dara maa bëgg nga waxal ma loolu ba àdduna bi yëpp xam ko bu ko coupé ñoom ñii ñoo ko rey. lan ngay xaar ci loxo yoon. <laughs> mu topp ñu topp yoon ba ba lum ñu may ñu ma am jël ko ñu justice liggéeyam. na justice def yoonu Grand Médine de ñu bëri xaalis amuñu fi da waaye ñu am dignité ñoo fi dëkk ñu am dignité ñoo fi dëkk ñu intelligent ñoo dëkk Grand Médine boobaa léegi si coow bi ñoom déggu leen ci kenn an ah, kay ñoom ñu ngi woote démb toute une journée am na ñu doon woo c'est que bëgguñoo wax tur mais toute une journée am na ñu doon woo dañ doon wax sax dañuy ñëw fii mais gars yi ñoo ko ne bu ñu ñëwee fii du baax ci ñoom ñoom ñu ngi soog a xam suñuy numéro téléphone ñoom ñu ngi koy soog a xam mais xamuñu ko woon autant mais nit bu nekkee xaj sax dafa nekk sa buntu kër di yuux di yuux di yuuxu yow loo ñàkk xel ñàkk dé ñàkk dégg ñàkk dégg di nga ñëw wax na ko xar bi xaj xaj bi lan la xëy na bu chaîne bi yeggul ba ci yow mais nga ñëw laaj ko nga posé question mu wax la loo ko mën a satisfaire nga satisfaire ko fay ko xaalisam mu dem soo ko mënul fay lépp nga fay ko moitié kooku doful dina jàpp ko ñi muy àndal ñëpp du gën a xam bii doo dugg ñu la dafa dof. mën nga ñu fàttali ñaata soxna la yor nag ñaata bant. ñaari jabar la yor juróomi bant waaw juróomi bu jigéen man la ko tuddee kumba. Mhm. ñu ngi lay jaajëfal booy di la masa waaw kay jërëjëf yéen tamit seen déplacement kontaan nañ trop gis nañ seen taxaw depuis ce ba léegi ñun yéen la ñuy wër parce que lii boo leen fi nekkul woon dara du sotti parce que yéen a mën a di dugal si lii dëkk bi ba ñu xam ne ne dañoo rey suñu doom xaruwul ñun jur juruñu doom ñun suñu xeet duñu xaru parce que ñun dañuy dañuy daw ba xëy dem àllaaxira waaye du ñu xaru parce que xam nañu ci xaru waaye nag sant naa yàlla sant naa yoonu tey bu ma tëddee danaa nelaw parce que xam naa sama doom xaruwul te fi mu ne bu soobee yàlla mu ngi àjjana sama doom xaruwul. mu ngi noonu mbokk internet Sunugal 24 mu nekk lu doy waar ba tey ñu leen di fàttali rek euh, ñu ngi fii ci Grand Médine ñëw ci ki nga xamante ni moo di Ablaye Ndiaye euh, mu daal di ñàkk bakkanam ñuy mastawu mbokkam di mastawu àddina di mastawu waa Sénégal yëpp rawatina mbokk Grand Médine yi di ko ñaanal fi mu tëdd yàlla suñu borom yërëm ko. xare ko àjjana jéggal ko ay bàkkaaram te xare ko àjjana dóor dañuy daal di continuer rek gis ñi nga xamante ni moo di ay mbokkam euh, xale la woon ay atam bariwul ku nangoo liggéey la woon ku jàmbaare la woon kon dañu koy ñaanal rek tamit njaboot gi nga xamante ni moom la bàyyi suñu borom teg ci loxo ci barke Seydina Mohamed. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Euh, soxna si ñu ngi lay fay. yow lan nga ci Ablaye Ndiaye. waaw mën nag euh, nijaayam la parce que mag yaayam ñoo bokk papa. donc mun naa ne yaayam mooy suñu taawu kër donc sa mag la ci man daal ñoo bokk ñoo bokk papa maa moom. ban yëg-yëg nga am ci sa euh, jarbaat. waaw xaw na ma choqué tuuti parce que bu fekkee ne lu mel ni am na maanaam dañuy xaan dañuy sant yàlla rek waaye te xam ne aussi euh, du lu ñu gënal daf ko ñu ko déggee du lu ñu gënal parce que parce que man li ñu wax ci Ablaye Ndiaye ak information yi ma jot. Euh, d'après autopsie bi lu ci nekk donc euh, Ablaye Ndiaye il paraît que dafa demoon kër Youssou Ndour kër Youssou Ndour la demoon il paraît que Youssou daf ko yoral xaalis Youssou Ndour c'est un responsable donc euh, peut-être moom affaire bi xeex bi mënoon na ñàkk sax ba ñu taxaw di ko menacer ba di ko jam mais li ma mën xam daal mooy yoon am na bu dee yoram Youssou Ndour yoroon na ko xaalis yoon dafa am du dëgg mais bon dafa wàcc yoon bi ci côté boobu mais la am importance mooy Ablaye Ndiaye xaruwut li ma dégg. xarwut parce que ñu ko xool nee nañ carrément xarut parce que Abdoulaye Ndiaye mosul am problème amul benn stress kuy toog di sensibiliser nit ñi naan leen takkalee seen i masque ça veut dire que xaruwul mënul xaru donc li am importance bi da xeex gaañ nañ ko jam nañ ko paaka léegi nag nee dafa xaru léegi ma dama soxla paaka bi nga xam ne moom moo loolu la xaroo anamo loolu nan la mën a nekkee parce que nit booy xaru li la rey dina nekk à côté si yow moom lañ koy fekkee parce que yàlla yàgg gis ni ku dee yàgg gis ni ku xaru léegi nag dañuy laaj paaka bi pour suñu wax bañ a sori parce que bi rey Ablaye Ndiaye la ñu bëgg ñu génneel ñu ko mais Ablaye Ndiaye da xeex man maa wax loolu da xeex ñu ñu ko dóor ko ay bolle ba pare toj gémmiñ gi jam ko paaka noonu la demee. da gis si yaram bi ay gaañu gaañu. ko gis ay gaañu gaañu li ñu wax moo am te loolu laa gëm man mii sax su ma fekkoon dinaa man dinaa ko photo man dinaa ko photo parce que ñu xam ne yoon yoon moo war a doxal te war ñu ko dañ ko bu ñu autopsie dañ ko war photo ñoom ay preuve yu leer voilà loolu mooy wax ji mais ñi ko gis carrément loolu la ñuy wax dañ ko dóor gémmiñ ji bi ngi doon nàcc ba nii ba ni ñu koy dencee man dama ñëw fekk ñu koy préparé pour denc donc dama yéex a yëg euh, événement bi dama yéex a yëg euh, kii bi euh, kii bi décès bi moo tax mu demee nii donc li ma mën a wax daal mooy Ablaye Ndiaye da doon xeex ñu dóor ko ay yet gaañ ko jam ko paaka léegi nag bu dee dëkk bi dëkk luwaa la dañuy doxal yoon amul maay diw amul maay diw amul maay diw nañ yoon doxal dëgg nañ doxal lépp ci yoon bu dee ko rey nañ teg lépp ci yoon bu dee paaka paaka bi tamit bu mu xaroo nañ indi paaka bi bu mu xaroo ñu gis ko ñoon man rek loolu la soxla te nag bàyyiwuñu nag man bàyyiwu ma de man bàyyiwu ma ñu may dégg je parle avec tout le monde ñëpp a ma xam affaire bi bàyyiwu ma tey bàyyiwu ma ti xool te ñëpp ay gis képp koo xam ne laagoo ci di nga gis euh, je répète encore képp koo xam ne yaa ngi ci biir di nga gis mais Ablaye Ndiaye bu tëddee fay mu tëdd yàlla na ko yàlla xëy def peut-être yàlla moo jaarale foofu mais nag yoon dina doxal incha allah il faut que la loi soit faite loolu laa soxla. yan seede nga ñu mën a defal ci liggéeyam. non li ma mën a xam ci liggéeyam man boo koy gëj a gis ça fait deux semaines parce que man dëkkuñu man maa ngi sama kër kër Massar donc euh, temps yii du ma toog parce que dama nekk ci problème ay réunion ak samay euh, membre association yi ma géré donc euh, ma ñu mujjee gisee kër Massar la ñuy gis ça fait deux semaines moom Ablaye Ndiaye ci boobam ma taxaw ma gaare après mu ne ma tons après ñu waxtaan mu ne ma ci guddi gi mu woo ma ci guddi gi ba ma woowee waxtaan nañu ma ne ko may dinaa la waat incha allah yu gën a déggoo après noonu déggaatuma ko ba démb si guddi laa dégg feebi sama ça man ba mu waxee Ablaye Ndiaye daf ma réer automatiquement xamatuma man Ablaye Ndiaye la Ablaye Ndiaye dafa xam na dañ ko jam paaka kër Youssou Ndour ay ma ne non c'est pas possible mënul nekk ban problème la war am après ils m'ont expliqué tous les faits ñoom Youssou da ko yoraloon mais bu fekkee noonu la demee na na na yoon doxal yoon. mais mosula wax dara ci affaire xaalis. non man ma franchement mosuma wax mosuma si wax dara parce que bu ñu waxoon sax dañ jaar conseil dañ ko conseil jaar yoon boo xam ne dina ma jot xaalisam parce que fii dëkk loi la yoon la ñuy doxal mais man en tant que nijaam sama gaañ la nag mais mosuma avancé ci loolu mosuma ko wax ba dama koy mujjee gis ça fait deux semaines parce que maa ngi Kër Massar ma am na mi ngi liggéey côté Tivaouane Peulh yooyu la newoon xam waaw léegi li ma mën a wax daal mooy loolu li ma bëgg daal mooy ngir jëm bi bu dee yoon am na nañ doxal yoon dama bëgg ñu génn ma paaka bi Ablaye Ndiaye xaroo bi ñuy wax waa kër Youssou Ndour nee nañ Ablaye Ndiaye dafa xaru nañu génne paaka bi mu xaroo loolu lañ soxla man loolu laa soxla te bàyyeeguñu affaire bi dina dem ci yoon te yoon dañ ko topp jusqu'au bout nag xam nañu droit xam nañu lu war a def xam nañu fi ñuy jaar tamit man foofu laa yem. ñu ngi lay jaar merci waaw ñu ngi lay fay bu bëree bëri di la jërëjëf di leen di la wax jaajëf jaajëf jërëjëf. lan nga si Ablaye. man yaayu Ablaye Ndiaye laa ndax sama mag mooy yaayam yaay laa si laay Ndiaye. ban yëg-yëg nga am ci bés bi. xanaa rek am nañu metti rek am nañu metti lool lool lool lool jabaram a ngi ne di dem alima moom laay wax nii pour mu indil ma doom ñooñu ay doomam lañu jabaram moo nekk noonu di dem ak ay mbokk waalo waalo mi façon teraanga bu dul teraanga génn defal na leen ko. ñu noonu di dem xanaa rek am lu ñu metti daal mett nañu torop torop ba si mu yàlla bu ñu waxee bu ñu waxul am nañ lu ñu metti ndax nitu njaay la nitu njaay la waaw ku wérul du yor ay jabaram ak ay carte carte mag ay carte UEFA yor ay budget nag ndax ndax moo yoroon canal moo yoroon réseau kanaal bi moom Ablaye Ndiaye moom waaw. mosoo dégg yow benn yoon fu muy waxee xaalis te buñ ko yoreel wala dara. waaw loolu koy yàgg na koy wax. yàgg na koy wax sax léeg sax bu waxoon day dem foofu léeg-léeg maa koy woo dalal ko ne ko demal wuyu sama borom kër gi su ma ko waxee loo rek mu ne yow moom sama xarit nga loo ma wax ma def rek mu daal di bàyyi daal di dem wuyu ji sama borom kër gi noonu bu ñu bisee rek day tëdd nalaw waaye bu ñu commencé sonal naan ni day dem almadi pour jëli xaalisam si Youssou Ndour rek yaay ji bu ma woowee ne ma ah rama mi ngi nii de di dem di waxti de day dem te buy dem duñ ko yëg day wax bañ ne ko waa bul dem mu toog ba mu yàgg rek buy jékki-jékki dem sax duñ ko yëg loolu rek la. boobaag léegi ay ñaata at la. Hmm, yàgg na yàgg na waaw yàgg na lool lool. sëñ bi ñu ngi lay maa ngi leen di fay. yow lan nga si Ablaye. man Ablaye Ndiaye mën naa ne moo ma yar quoi. football sax su ma ko bëggee Ablaye Ndiaye moo tax moo doon téye sama loxo yóbbu ma fu ne na ko ñun ci football xam nga moom moo ñu yar nekk nit ku baax nit ku jullite nit ku bëgg ay nit fonk doomu aadama. nit ki nga xamante ne mën naa ne Laye Ndiaye bu amul alal al alalam bu muy jël di ko partagé ak nit ñi moo tax di ko sëñ Fallou la yor dencul dara lu mu yor da koy bokk ak doomu aadama yi billaahi loolu daal mën naa ko seede si moom ndax da ko dund ak man dund ko ay nit yoo xamante ne dama si am preuve weer day dee Ablaye Ndiaye def ay enveloppe vingt cinq mille vingt cinq mille Moussa la koy jox rek ku yaal yi ne ko yóbbul ma ko si ay maire ak ay paa di ko séddale loolu am naa si lu ma nit ku baax la yàlla na ko yàlla yërëm nag xaare ko àjjana fi mu jëm gënal ko fi mu jugee. ban yëg-yëg nga am tey. metti na ma torop metti na torop wax fa yàlla sama deret moo dem à grand mine tey dañu perte Ablaye Ndiaye dama doon xuloo moom si lan ànd moom suñ doon ànd avant ñuy génn kër gi dama naan ko laay mu ne ma naa ma ne ko man du taxaw bu ñuy dox du taxaw du tegee ñaari pas ñetti pas day taxaw wax ay nit. soo àndeek moom yow yaay soon ndax dafa am yitte si nit loolu wax dëgg fa yàlla dafa ne si moom loolu moom lu nekk si moom lu naturel la du lu mu forcé dafa baax nit ku baax la billaahi amul dara loo xamante ne jaaxal ko si àdduna ñeewul nit lu moom da doyloo bëgg yaayam nag torop bëgg ay nit man dañ doon toog mu ne ma booy booy di toog si bopp koñ bi yëpp di yëpp dina jeex incha allah si li ma nekk bis bu sottee yéen ñëppay xëy di gont lii daf ñu ko doon wax barki Seydina Mouhamed du loo xamante ne tey mi ngi si dëgg maa ngi si fenn lu ma ko waxal loo xam dund ko lu mu dund ak nit ñi rek laay wax nit ku baax la ñu daal ñun dañ perte quoi suñu grand lañ perte royukaay bëgg liggéey billaahi jaajëfal waaw maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax